nek larbin bañ def la ministre nga ñëw na da ngay fonto Sénégalais quoi di jaay xamadi ak reewaande melni yow Sénégalais yi yow ya leen gën yow do dara yow ni nga mel Sénégalais ñoo tax nga mel ko la question que tout le monde se pose moy comment tu as fait pour être avocat parce que mënoo wax wax ju nit mën dégg ay waxu dof ngay wax amo xam-xam sa lepp pour yow arrogance la ak jaay doole te amo doole. su fekkee Macky Sall moo tax nga réew wala nga fuy ñun faaluwuñ Macky Sall lijjantiwuñ Macky Sall parce que Macky Sall mi la def ministre ba tax nga yàpp ñu du ñuy xeet moom fu mu toog ñu ñoo ko fa teg ba mandaayam jeex mu forcé na def ñuy diriger par force te loolu du fi amee su fekkee loolu moo tax ngeen reew bëgg a wu ci pouvoir bi loolu du fi am tey du fi am ëllëg dama ko dégg mu ne fii jaagatu ginaar ak ay ndongo daara bi ñu fi nekkee président kañ la daan jaaykatu ginaar ak ndongo daara di laaj pour nekk njiitu réew man ci daara laa jóge ko parce que fa ma dëkk daara la ñoom laay tontul sa xamadi gi ak sa rewaandi gi danga koy yemale ci ñi nga xam ne ñoom la saf quoi sa baay bi mu juddoo doomi daara yi ñoom ñoo ko tudd xaw ma ndax mu ngi dund wala dee na bu dee wala su fekkee dee na ba pare doomi daara ñoom ñoo ko jullee jébal ko boromam yow bi nga juddoo doomi daara ñoo la tudd soo dee doomi daara yi ñoo lay teg ci jàkk jullee la jébal la sa borom sa reewande gi Moussa Bocar Thiam si turo dafa ëpp quelle arrogance lii lan la qu'est-ce qu'est-ce qui se passe yéen da ngeen a yab sénégalais yi quoi xeeb sénégalais yi yéen dangeen a nekk dara ay simple poste ministériel boo xam da nga waroon nekk bàyyi faalu askan wi di servir sa réew respecter nit ñi ba pare ngeen di manquer nit ñi de respect mel ni yéen post yi ngeen nekk daf leen a jomb c'est vrai que daf leen a jomb parce que nit koo xamante nii da nga arrogant parce que ministre nga poste bi daf laa jomb waaye am na ñoo xamante ni luñ manti nekk ci àdduna du leen tere modeste du leen tere respecter nit ñi du len tere humble am humilité mais ku nekul gor jam deug lay teranga di dab muy soppeku teranga jo xamne deretu askan wi ngeen di nan, di jël l'argent di contribuable di ko dundee waxuma mu da fay tejj wal fajiri yow ban prérogative nga am en tant que ministre de la communication nga nan da ngay tejj wal fajiri waxuma la nga nan da ngay retirer licence bi waxoo dëgg da ngay fen mënoo retirer licence Walfadjri parce que tu n'as pas les prérogatives nekk ministre de la communication warul la mën may nga ne da ngay tëj Walfadjri ba naan da ngay retirer licence bi loolu compétence générale euh, te dafa am fumuy muy jaar dafa wara am mise en demeure am fum wara war jaar ñu fa ag te Walfadjri dafa deful sax lutax tax ñuy couper signal waxuma la ñaan dañuy retirer licence am lutax ñuy retirer licence am lan motax tax ñuy couper signalam ba naan dañuy retirer licence am mais dëkk bo xamne dafa am information télévision yi ak radio yi lan moy sen rôle lu di informer nit ñi ngeen de yeen kenn du fi informer kenn di dag ay internet quelle arrogance reewaande manul manul manul weesu ak manque de respect notoire vis-à-vis des sénégalais man te euh wessu ngay couper ay signal dem ba naan da ngay couper internet parce que da ngeen a bëgg ñu leen di wax lu leen neex di génnee lu leen neex ngeen di Sénégalais yi Sénégalais en otage Sénégalais di nekk ci mbedd mi di di manifester ngeen ne kenn ko mobile da ngeen koy couper Sénégalais yi di ci Sénégalais yu l'argent du contribuable di fay impôt di fay ay taxes taxes yooyu noonu ak impôt nga yow ñu la nga ñuy jaay rewandé nan da ngay couper internet bi yow ban maqaama nga am banan da ngay couper internet yow fan nga teg lolu yow Moussa Bokar Cham yow yaay kan yow tu te prends pour qui so xamul sa bop ñu wax la sa bop yow do dara do tus banan da ngay couper internet mais sénégalais yi ñoo ñak fayda te ñom ñoko nangu ay ba dole des vauriens yu tekkiwul dara tok Sénégal di fonto nit ñi nan dañuy couper ay internet ñep tok di len sétane couper internet pour lan ñaata nit ñooy liggéey ci internet bi ñii di ci def ay transfert d'argent, argent hein? ah ñii di ci def euh, cek-cek di utiliser GPS ah hein? am ñoo xam ne seen yoon nekkul ci li xew Sénégal ah ñu am droit utiliser seen ay données mobiles pour ay affaire politique ay bëgg a sénégalais yi tax nga naan da ngay couper ay internet ba pare di ko bàkkoo di génn ak benn ton bu arrogant di jaay rewande ak xamadi li am Sénégal yëpp sénégalais ñoo ko nangu billahi wallahi wa tallahi am na réew yoo xam ne soriwul Sénégal dara ci sous région bi luy Macky Sall di def Sénégal ak ñi mu àndal wallahi buñ ko defoon duñ fanaan ci réew ma billahi wallahi wa tallahi waaye Sénégal moo nekk réew moo xam ne ku leen yab rek ñoom ñoo tax ñu yab leen li olof di wax naan bu bukki waxee yabee waxambaane

mu duggal benn xalé bu jigen bu ñu emprisonné tay japp ko nan ko ñaw waxon nañ la dinañ la japp yeen ñep dinañ leen traqué japp leen ñom dañuy tok sax nak ñom ñoy japp lu nit ñi Macky Sall nu mu yaqé Sénégal médiocrité bu mu indi Sénégal non mais Macky Sall suñu ak wallahi bés bu ko dalé du bax ci mom ay vaurien ay do des énergumen yu wul ta tié sénégalais di leen fonto nan ñom ñoo wara nek ci jamm Bonne ak violence ak ben arrogance amna ben benn may suivre ci euh, euh, ci Twitter bi wax Mikael Ndiaye xoma mais di n'importe quoi dafa mel dañ leen wax sen bay quoi lu neex la wax di def lu neex quoi nit ñi tay Ndiaye publicité euh, publier mu ne procès Sonko pour xol événement 2021 yi ñu xam kan mo def ñu jaarale len ci yoon kon lolu motax ngeen da ngeen jël élection yi ngeen repousser ko billahi wallahi watallahi bu ngeen jappé né Sénégal yeen yeen ko mom da ngeen di nax seen kont na len ci dynamique bi ngeen nek rek li dina jeex par force day jeex te soretul ñun Sénégal lu nek lañu jaral jaral nañu suñu bakkan yi ñun ay baadoolo duñ ñew ñu jox leen réew mi ñuy jaay rewaande di ñuy jaay arrogance di ñuy jaay violence lu ngeen ñu jaay dinañ ko nangu lu ngeen ñu jaay dinañ ko jënd te amul kenn ku ñu mën a teree wax nag salaamaaleykum wa rahmatullah